spécial promo waajal korité chez Ma Aïda cosmétique Yen ni beugone ci produit Ma Aide cosmétique yi te jotou len ci won am nouvelle bu neex la len indi Ma Aide cosmétique def len defal 15 jours de promo pour jigéen ni beug a respect ci la wax de Ma Aide cosmétique def len defal promotion ci les Awa Diamond bi weex tàll gam bi lay wax de def len ko wagnil ba 15000 francs dong Ma Aide cosmétique indil na len en promotion carité urgence bi Fi ak fukki Carité fan ak moi karité urgence bi xam ko résoudre sen problème ou peau sèche fay hydrater sen peau dadi nandal sen yaram ba noy nep. nepp ah gommage yu ne laa baa ngook en promo Yen ni am yaram yu tiéré mba ay rew sonal Ma Ma ay de cosmétique indil na leen ay produits yu leni tagalé ak mom set ko wax promo waajal carité Bangok. ngook len gaaw ci numéro yi dadi passer sen commande ñu ci 77 820 40 40 ci 77 811 40 40 wala ngeen woote ci 77 070 10 10. Ouzin mbaa xam nga ni kër gi dina gën a bari problème. kër bi lan moo koy andi problème. papaay Biba de moo fi ñëw. papa papaay Biba bu ñëwee ci kër gi seet si doomam loolu ci problème c'est normal nag. man de xaw naa see gis problème. loolu nag mu yëngal kër gi nag xadi. waa Ouzin ak fi réew mi toll fi jamono ji toll nii booy dem seeti sa kër doom dëgg la amul problème waaye nga woote sax laaj ci nu ndax ak kër famille yi ni muy demee mais nga jéeg saa rek ñëw. <laughs> matu ko nag sa doom moom nga koy seeti jarul tàggoo dafa dem ñëw rek pour xool lan naka la doomam toogi d'ailleurs moom mosuma ko fee gis mosu ñëw ah toute façon jàpp naa ne moom moom du fi yàgg daa ñëw xool si doomam mu toogi rek. ñi xamuñu loolu de en général ñi bu ñu jógee fa la ñëw fii dañuy defani fii France la du ñu yàqamtee sax ñibbi. lu leer laa la wax <laughs> yow ñii xam nga ne dañuy sàmm yor seeni nag ak seeni bëy ak seeni xar mënuñoo dem fenn ba yàgg fa ndax seeni njur yi dañuy sàmm nag mën na am fi yàgg kon ah, ok heureusement bu fekk fi papa waaw en parlant de moom waaw mu tàggoo dem seeti waa ba tey ñëwul de apa? Wanita namanya banyak wah rek. lan gak banyak wah? kamu gak rek. xadee lo bañ banyak wah lan lo ham ya wuih mah eh kan am bu mana kau yow. waa de c'est kan que ne amuñu Nah bulu darah sama xarit nga sama jabar nga Eh am plus sama wujju peccoor nga Wah xam ya, papa demo. moom. yow xadi papa de day seetu papa daa takkaat jabar lan. <laughs> yow papa kañ takk jabar. papa de li ñu foog ne mi ngi village yëpp naka te mi ngi fii di seetu te rex ci dolli li ci gën a neex mooy laaj ma kala tàpp. kala xaritu yaa aar. <laughs> Xadi Mbaye lan ngay wax nii. lii de xaritu yaa aar waa léegi góoru famille bi lan mooy seen problème. waa ñi nañ visu yow jël xarit taf ca moromam rek tak lañ lañ xam waa d'accord nak waaw kay li laay li la wax nak dom ja nday ja xawma dom ja baay ja ko mëna wax ko li benn virus la am jël ay xarit max ngi ni jël ñetti xarit rangala leen ci biir kër gi tak mayatu ñu ni deeta way mu tek ci bi ba tek ma ci man wa baxna bi de heure bu kalaté <laughs> yalla bu mu fekk ci kër gi te xam naa ne mère Anna rek. yàlla de bés bu yéegee lii. waa fii day toj fii mooy toj. ah yaay door a wax ndax papa benn ñaar mu ngi daane mis daa siite ay mbokkam yàgg fa ba dee. ay eh, Ouzou. Ah, eh, gi nag ci couloir na de ah xaw moon ne am na bile guuman. Ouzou de nee na fi def nii defalu ko kenn ci kër gi. li ma la waxoon ke li ma la waxoon rek laa lay waxaat bu ko defee fii nee na fi moo tax dañ leen seetaan man maa ngi dem. waaye loolu nag yow yaa a wax mu jël ay matukaayam bu koy demonte fii yaa dàmp guddi de waaw ma demal ndax sa jëkkër lu fii lay traversé gis la andi la ay problème laa xaal maa ngi si biir eh, sama doomu ndey sañ-sañ waaw waaw France moom boo fa nekk sa teen bi nii lay mel a ah, France moom ki kañ laa fay dem nag. waaye mere naa la. nga jóge lu toll ni France. Hmm. Hmm? nga ñëw fii may dégg munaasa ngay joxe moo ngay séddale teraanga ya amaguma ñàkk am gi yëpp sax man li ma la gisul moo ma si gën a métti xam nga man yow yaa gënal sëri war ngaa def lool. yow ñu benn munaas kese moo am dëkk bi wala nu fa demee. moo am ci dëkk ban. si dëkk bi ñu ne Sénégal fi ñaata menace fi am bari na. kon kay jeex mais France moom Bikirinton bu fa ñetti menace duggee mu woote euh, présidentielle ne dugg bee génn bi bari na. fii kay mel ni marché caaroon suñu dëkk bi nga ne. waaw Macron la waaye na mën naa la nag. maa la raw ah, waaw loolu moom. maa ngi nii ba ma ñëwee du sa kër laa njëkk a doon napp rek dama xam nga la la maanaam dama laa namm namm goo xam ne bëgg laa expliquer yoo xam ne vocal doyuma ci woon. ndax damaa ragal ay transfert te tubaab nga mën ngaa soppeeku te dama <laughs> France neex na de. waaw yaa ngi imaginer bu ma waree at. waaw man dinaa bés dina jot rek ma attaché votre ceinture lu neex xool naan hôtesse de l'air yi di loo di café ah. <laughs> xoolal di di lire journal ci biir avion bi yaa ngi imaginer loolu. yàlla mën na ko waaye kañ nga koy def nag moom. léegi rek incha wax daa bari xaju fi dangaa waroon toog ma ñëw sama goro bi paa bi ah. paa baa ngi toj kër gi paa bi daal ndekete daa ëmbal ñaari xale yu jigéen ba ñu nekkee xale ba ñu ba paa bi amee 18 ans mairie am 15 an ñu ñu ëmbalante te ñi mu ëmbal bokk ñu ndey ak baay de ku ne daa ëmbal sax yaay daal xam nga li ma ñoom nag doomi ñoo juddu màgg nag toll ni seen papa ñoom ñu ñëw nag rangaloo ñu mel ni ñuy ñaq ñaari doom yi ñëw àndaale seeni jabar yaa ngi imaginer loolu ñaari doom yi ci biir kër gi àndaale seen jabar kenn ki yaa yooyu de kenn ki Ousin la tudd mm-hmm. keneen ki Xalil mm-hmm. ki ci tudd Ousin moom dafa réew bon xol xol bañ ne ko ba su suy nuy ñu la <laughs> loolu nit di dina ko mel. keneen ka moom Ouzin moom réewandeem foo ko natt rek weesu na ko. Mm-hmm. ndax réewa tax mu jël affaire bi ñuy naanee kafe affaire tubaab yi am na France yi. occatéria yi waaw mu def ko fa ba pare ne kenn du ci naanee café. ma ne ko xanaa buñ ci naanewul café laax lañ ciy lekk kii dafa réew. dafa réew fi mbay nag ne ko dama lay ñuus muy riposté na fi mbay ipit kii ndeyam. di ko di ko di ko tinga naay di ko maa jéeri dóor ko ba muy bëgg de dee. woot ko ndeel foo ma ñëw yéeg ci kaw na fi mbay ne ko boo ko laalaatee ma noq la parce que kii da nga koy rey mm-hmm. kii munu maanaam maanaam da ko doon gaañ xale bi xam fa laa mujjee moom di <laughs> ko coppeet dama ko nii nii rek ñaari mbagg yi topp ma ma tegal ko ne ñetti faar yi ne ko ah. kañ ma yóbbu ko ñu ngi ko enterré nii keneen ki tamit xalil jabar ji dafa bon a bon a ji da koy dóor péeri dóor bu ko koy laaj ci mbedd lay taxaw naa ko sama dépense suba ma aye mm. dañoo ñàkk ñu ay doomu xaraam la yow man fii may sëy nii baaxuñu mm, ñu ne ñu ne déetati kii nuñ koy waxate maire bi da xaj bi ana fay moo gëna ñëpp xoonam ci kër gi moom man dama dul wax sax ay waxam du sama goro de sama rak ko goro bi ah. gis nga ki ni nga koy waxatee yaa ngi waatam mu naa ah. lan la nak ah, no dara wa dama laa namoo nak sama xarit ma la raw ma la raw wa eh wa man dama bëgg dem France nak. Eh, yow dina dem léegi wa yow dinga nga do doomi xaj bee keneen ko nu tuddati kee dimbali ma yow tamit nak sama wi benen njëkk bi doomi xaj bi aya Aya, waaw aya diggante momit am na doom bu toll ni papaam dañ ko ëmbaloon mu dem jàpp xale ba nëbb ko daara nekk yóbbu ko daara de ci bandi la ko yóbbuwoon xale bi di jàng daara ñibbi si fi laal xamatul dara xale bi xàmmeewul guddi xàmmeewul bëccëg loo rafet na. Eh? Nafi Mbay dem yenu ndeyam delloo sil ko ko. yeggal waaw déedéet menace bul ma def nii nag bul ma dagg may jégal sama xarit nga yoo xamal ay viw tubaab ngeen tàmbali affaire France yooyu affaire France yooyu day dofloo nit bëggatu du ngeen bëgg ay biir yaa ngi dégg léegi nag sama jëkkër waaw yow tubaab bi du ma dégg ngir yàlla rek taxawal eh, yàlla ya daa def ne ñëw ma fii nga may expliquer seeni problème famille man su ma génnee ñu jàpp ma dóor ma ba bëgg a dee kenn du la dóor nga jógee France yo lay dóor waaye lii dugg ko waaw surprise da ngay gëmm waaye bàyyi ma gëmm nag bàyyi ma gëmm. xoolal cent mille francs yi ma la jox. Hmm. xeeb naa ko trop. Aliou ñaata <laughs> cent mille francs. waaye doom nday yaa ngi liggéey waaye. yaa ko moom waaye looy liggéey France nag. lépp ba da ngay laab tubaab yi. wala da ngaa ñëpp ñëpp nga yemale sa ba indi woo sa xaalisum sa formation fii. dañ laa wax loolu laa nekkee laa koy denc bu dul loolu sama jëkkër ji doomi xaj la. xoolal duma ma agressé de damay lambatu ba nangou ko ni la lay def ay siiri dawal sa yaram ni ne ko coppet yob ay yalla na la yalla fay contane kontaan barké da yaa yaay dégg léegi nak aya ndekete moy taawu kër gi léegi nak mom ndekete dañ ka ëmbaloon gandu du maami ëmbal yooyu mu am dombu go diko neub dara ja lañu lañu kiyee affaire bi ndekete ma ko yaa ngi dégg ndekete yow li ci gëna neex nak moy xol ndekete aya dom ji tol na ne papaam ñëw ñu xëcc aya rek ah ooy sama xarit bi changé na di waa tubaab la merew ma de maanaam man dama ko bettu ma ko de xamante nañ mais tàmbatu rythme bi rythme waxtaan bi xam nga denc ko fi balaa xaj bi ñëw di ma làmbatu xam naa ko dama am émission bu ma nii nii rek ma tàggali ko sama sogo mu jël cent mille takki jee ko jabar comme moom daa feebar si kii jàng sañ na nag France tamit neex na nag Maria Maria naam kaay yaa na waaw Maria naam ça va ça va maa ngi nii rek cool sant la bëgg wax ñaari baat yu bari eh, eh. da ngay jaayu wëyu ak bandi eh eh tëjal sa gat laa wax maa la gën a wëyu gën laa bandi munoo xam man lu ma xamul man mi la mën a jur xam nga la laa lay xamal man munoo maa te xel amoo xel mu ma amut yaa ngi may dégg munoo xool fu ma du xool tëjal sa gat laa ko ma pare mm. ñii ci kër gi xale yi nga maaseel génération ñoom ngay teg dil mais pas man bu dee wuyu maa la ko gën a def bu dee bandi maa la ko gën a def ñetti see yëpp ñu ngi ci man capable naa coupable naa criminel naa mm. kon xam nga maa la gën a wuyu dama ne lan nga séq ak Moussa Mbaye <laughs> eh, kan xamoo kuy Moussa Mbaye <laughs> xamoo kuy Moussa Mbaye doo xaaral lan lay xaar waaw ah, kooku sama papa la rek yaa na yow tamit nag dama ne nga tëj sa gat waaw ah, teggi sa loxo dama teggiwu ma lan mooy sa problème laa lay laaj ba tax nga wara mëna ñëw ci kër gi di ko ruwé sa xolal sa mag sa rak mo la fi indi yamal ci sa rak ah liggéey mayatu la de mo fi jaar ah kon yow jot nga def yow ba mayatu di wax yow da nga a def kon yow dé dama joom rek dama ne asuba ngeen di def asuba moy jeeg bu mag mais man jeeg bu ndaw la dama mhm. toll ci sama digg ndaw sama digg doolé ya ngi may dégg su amaté dina la tégal ba sa gat di dag la la wax deug la ram bi nga doon olsun. ay man bal doomaraam moo ma yoole fii yàqal ma xaw ma kan moo wax yaa aana lii de boo demee sax ma yaatu la waaye géer bi day gën a saf kii duma ko may dara ndax sama dee la bëgg Ma Aïda cosmétique moo leen doon may seen yi awo bi